ay ca doore koor la ko lijjee yéene kaay nguuruk Sénégal de fu mu nekk nii la ko teree nelaw du lenn lu dul nees mën a def rek ba dakkal mbëkk mi waaw waaw phénomène immigration clandestine bii nguuruk Sénégal nee na kon nan lay def rek ba daal di dakkal lu ni mel l'état veut stopper la vague libération yéene kaay ne kon nguur gaa ngi say def ay jéego de ah kay nguur gaa ngi say def ay jéego ndax nag trois départs yu nga xam ne jot nañu ko éviter jamono ji nga xam ne gaal gaa ngay suux foofee sa waaxi wakaam ba fukk ak faatu ca jàppale ne kon amoon na ñaar ci ay gaal yu xam ne nii ñu ngi doon embarqué laa wax nii ma fa ñu nekkoon ca Saint-Louis ak Jogo ñu ne déete waaye nga dem sa bar ñi ñu teg fa loxo benn gaal gu nga xam ne ni ñooñu dañ bëggoon tëmb yi ngir mbëkki libération ne kon ñetti gaal yi jàppale ne kon mujjee ñoo tëmb de déedéet mujjee ñoo tëmb ndax dañ leen téye Mamadou Mignane Diouf ci Vox Populi nee na nguur gaa ngay def ay jéego waaye dama ne du yomb benn yoon ngir arrêté lu nu mel moom coordonnateur bu forum social sénégalais nee na l'immigration irrégulière ne s'arrêtera ñu ni kon wàllu migration fii réew mi toll wala fii àddina bi toll lu mënta que ñoom nangu ñu ne kon lii droit la fi àddina bi toll dama ne wàllu màngaan gi ci boppam du dàkk vox populi te muy dëgg mënta dàkk sax de ndax na gaañu am dinañ ay pexe yu yees laaj ma na la ñuy mbëkkee gaal gi duñ ko jël ci tefes gi de déedéet dañ leen di yaale laaj ma luy yaale laa la wax vox populi nee na yaale du leen lu dul gaal gu mag gaay nekk ca biir géej gaal gu ndaw gi nekk ci tefes gi di leen jël di leen yóbbu lii mooy yaale gaañ nii la ñuy tëmbee laa la wax direct news xaw ma yaale xaw ma yóbbu de waaye dama ne ana nguurug Sénégal laa la wax xale yaa ngay dee en gros ci géej gi deewatuñu détail benn benn dee déedéet xale yaa ngay dee ci géej gi comme ay wañ nguur gi nag mel ni ku yëgul ku tinul léttu ay dégguma rek fukkaa juróom ñetti ñoo faatu sa waaxi wakaam ñu ne déetawaay ak gaal gu def téeméeri doomu aadama ak juróom fukk nee nañ ba fii kenn xamul fu gaal ga nekk ci biir géej réer mër ay convoyeurs yi nga xam ne ci diiru ñaari weer ñu ngay def seen liggéey laa la wax de te tiituñu rafuñu waa dama ne ñii ku leen dooleel yet sa gaal yëpp si ay doomi a ci kenn dégg ko moo di Pape Malick Ndour jëwriñ bi dénk wàllum ndaw ñu waa moom baadu dafa diik wala dafa jël mbëkk mi ba kenn gisatu ko kenn dégg ko jamono ji nga xam ne xale yi ci boppam ñooy tëmb ci biir géej di dee ko may wañ Pape Malick Ndour jëwriñ ñu dénk wàllum ndaw ñi mel ni ku nekkul ci réew mi Pape Malick Ndour noyé sous les flots des indignations lii la Témoin mooy bind nee na man ku fi gis Pape Malick Ndour rek na ma wax aatu dafa mel ni dafa réer tribune laaj man ani nguur gi laa la wax ji nga xam ne xale yaa ngay tëmb di wutali biir géej lu toll ci 478 ay migrants yoo xam ne nii laaj ma nag laaj ma fu ñu teeree sa dax foofee la ñu téeree kon nag léekoon faatu nañu ñooñee yàggatul dara dañ leen andi fii ci réewum Sénégal delloo si leen tribune yéen kaay moo joxe boobu lépp xibaar de l'observateur ne kon tribune wax nga dëgg de dama ne yéen kaay groupe Futur Média nee na yéen kaay groupe wax nga dëgg de l'observateur nee na ak daxlaa gaañu demoon mbëkk yaakaar ne dañuy yegg par sax téere jee daxlaa ñoom ci boppam yaakaar gu tas la ñu amee ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett la ñu toll fukk yi jigéen ñetti ñi di ay tuut tànk ñu war leen a fii ci réewum Sénégal baaba topp ñaar fukk ak juróom-ñaar la n'arrivais plus me lancer nga xam ne dund naa ko ci biir géej gi xel xalaatul bu doon gratuite laa la wax ñu jox ma yóbbal jox ma sërija ne ma tëmbaatal biir géej du ma ko def la ma dej mënu ma koo nettali laa la wax dama ne ña nekk sa fax sa Tunisie la ñuy dund jéggi na dayoo ñooñee yegg nañu ba tàmbali woon liggéey waaye laaj ma la ñuy dund doon jaam sax moo gën a yomb lu ni mel amul benn moyen bu nga xam ne am nañu ko ay salaire yu nga xam ne nii daanaka turu salaire rek la harcèlement sexuel xale yi jigéen ñi ñu leen di dëkkee tëddee te mënuñu si dara l'observateur ne dama ne yëral ay sénégalais ñooy dund lii laa la wax noonu foofu SS Fax dund gu dee gën tribune yéene kaay ne kon jot na nag nguurug Sénégal génne wax te génne nañu wax démb waaye nag gaa ñi déggoo ñu de gaa ñi déggoo ñu réeroo am na ci diggante Antoine Félix Diome ak Abdou Karim Fofana ñaar ñii ci boppam bilaa ba ñu joxee ci gaal ga suux sa wakam du benn de déedéet dañoo juum laa la wax ci wàññi gi Abdou Karim Fofana ci critique yéene kaay nee na lu ci bëri loo ngeen di dégg ci ay xibaar ni dara du ci dëgg dara du ci dëgg laa la wax nii ay xibaar yi ñuy joxe nii rek nañu bàyyi manipulation be yàq der gi Abdou Karim Fofana yéenekaay ne boo leen bëggee dégg dëgg de seen xel na dal toutes les dispositions seront prises pour porter assistance aux rescapés aux familles des victimes lii la Abdou Karim Fofana wax le peuple quotidien ba tey dikk ci kàddu yi Abdou Karim Fofana nee na lu mu gàtt-gàtt fukkaa juróom benn ñoo ca faatu waaye du bàyyi yokk bi gaal ga sa wakaam de nee nañu 18 moo ca faatu loolu amul ay kàcc la 16 morts la ñu laa la wax nii le ne kon nañu wax wax ji rek nguur nag nanu wax dëgg gi Abdou Karim Fofana mooy insisté de nee na foofu seize morts la waaye du 18 te gaal gi ñu wax ne kon vedette bu marine nationale moo ko mbëkk amut na wax ji leer l'évidence yéene kaay ne man nag li ma jaaxal du lenn lu dul doxalin gu yees gi ma ne meeku ci diggante Ousmane Sonko ak Macky Sall dama ne ana lu xew ana lu xew gaañi ñu ngi koy waxtaanee si suuf am rek doxalin gu yees la am jënd glace la rek ngir andi jàmm l'évidence yéene kaay ne ci cinquante cinq jours ñu wër ndoom bu kër Ousmane Sonko ñu ne déeta waaye Macky Sonko damay laaj rek l'évidence yéene kaay ne damay laaj dong laas yéene kaay ne boo leen bëggee dégg dégg dee dafa mel ni lii loxob roi Mohammed VI génnu ca de buuru Maroc génnu ca benn yoon déedéet dafa mel ni kon ma nga cay dox ci suuf diggante Ousmane Sonko Macky Sall laas yéene kaay ne roi Mohammed VI a nga ca ginnaaw de ma nga cay wax de moo cay dox boo leen gisee changement bu mu leen bett mooma Abdou Karim Fofana na neexul ba neex waaye manipulation bépp na jóge ngeen ci mbëkk mi léegi yéen a ngi ci blocus bu Ousmane Sonko kër boo leen gisee ñu yëkk ci barrière dafa fekk rek Ousmane wooteetul fitna kenn déggatu ko mu naan gat sa gat sa kaa leen xeex cooki final loolu moo jeex waa dama ne loolu bu jeexee kon barrière lu mu fay defati le blocus de la cité Keur Gorgui a été levé parce qu'il n'y a plus d'appel à l'insurrection lii la Abdou Karim tontu la alors ci yéene kaay l'enquête yéene kaay ne kon ku wax ci lii wax ca la ca mu nekk ni candidature bu Benno Bokk Yaakaar dama ne moo ëpp bopp askan kan mooy doon candidat bu Benno taxaw fee nga xam ne mooy boroom Abdoulaye Daouda Diallo moom fuuta daf koo téye l'enquête yéene kaay de boo leen bëggee dégg dëgg yi de Abdoulaye Daouda Diallo Aly Ngouille fu mu nekk nii dañoo joxonte loxo ngir jàkkaarloog Amadou Ba mi nga xam ne ni ñëpp jàpp nañu kon mooy favori te moom la président Macky Sall di tànn coow am na réew mi quotidien ne lii rekk nag moo tax Macky Sall ñu bari laa la wax le nouveau Macky intrigue na muy doxale daanaka nag dafa a la mooy yéen kaay ne super li ngeen rajo day dem wócc samp na ndëndëm Aminata Assome Diatta candidature moom kenn xamul fu mu ko wéer kenn mënul xam rek fan la Assome Diatta wéeru ba ne noonee yaay candidat la Anta Babacar Ngom ñëpp xam nañ ne candidature amul avenir Aminata Touré la candidate de trop Aïda Mbodj nag neex ba neex mais c'est la candidate qui peut faire bouger les lii mooy jàngatug le point ci candidature jigéen yi nga xam ne ñoo samp